dafa gis li mu tabax yëpp ku ci nekk mais c' est le continuum de Ablaye Wade c' est Ablaye Wade et le continuum de Abdou réew noonu la demee di ku ci nekk da ngay teg jéego dem sa dem keneen ñëw tegaat leneen keneen ñëw tegaat leneen mais jàpp naa ne aujourd'hui euh, dégg na am na problème bu am boo xam ne Covid bi daf ko yokk Covid bi daf ko yokk tey ñi doon jaay tànganaa guddi daaw ñu jaay. ñi doon jaay yenn dàll yi ci mbedd yi di ko teg guddi ñooñu guddi leen daan jaay daawuñu jaay maire Fonde yi maire Ndambe yi et cetera léegi mu ne léegi attends on va prendre 65000 man de 65000 su ma ci amee ci sama commune dana am xale yu bëri yu nga xam ne danañ ci liggéey. monsieur le ministre oui dëkk bu mel ni Sénégal ak richesse yu ñu am ak presque président jox nañ ko mille milliards. donc su ñu dañu war a xaar ci ay maire Ndambe ay maire Thiagri pour pour pour nit ñi mën a nekk ci jàmm. non mais Paco xam nga boo ne jox nañ ko vingt huit mille milliards jëmul ci poosam xam nga budget ngay wax. waaw budget mooy lu ñu natt pour liggéey. yow yaa ngi dox ci mbedd mi yaa ngi gis gis nga ne quand même ba nga ba fi makki Sall toog ak léegi am na ay écoles yu bees am na ay tali yu bees am na hôpitaux yu bees am na am na am na loolu mooy milliards yooyu nga tudd. donc du milliards yoo xam ne daf koo téye daf ko ci poosam di jox Marème di jox Amadou déedéet demewul noonu demewul noonu ba pare économie sànq dama d'accord ci lii ci ci li euh, astu wax il faut créer l'environnement des affaires pour que nit ñi mën a lijjanti seen bopp xaaj bekaay gis naa projet bu mu def ubbi entreprise jël ay nit ñu fay xëy di fa tuur seen ñaq loolu mooy environnement des affaires état mënut a jël ñëpp kooku set une hérésie ñu jàpp ne képp ku génn di chômer état daf la war a recruter loolu mënul nekk mu sonn loolu ah, sonn loolu mais waaye dina baax ah, leneen li nga wax leneen li nga wax ci formation jàpp naa formation xanaa foofu ngay jeexale waaw parce que dafa ma ñetti question waaw nga formation dama jàpp ne ñi ñuy jël ku ci nekk danañ la defal formation mënuñoo jël nit ne la aca demal demal nga defi pavé wala demal defi sécurité te formé la danu lay formé jël la ngay liggéey nag ci état bi c'est ça lecture boobu lañ ci war a mais leneen li nga xam ne sax 65000 employés daf koy indi en sus de ça dafa am li ñu naan partenariat entre état ak entreprise état un milliard la daan dugal ci entreprise yi tey dana dem ba quinze milliards ne maanaam entreprise bi 2STV yi bëgg naa nga recruter ma ñaar fukki xale yow del fay moitié man beneen moitié maa koy fay xam naa xaalis ba kay yow sax danañ la ko defal. Ah ndax yaa ngi ci mbir mi. Ah, ci nga bokk ndax entreprise nga am. Ah, et ça c'est les entreprises de manière générale ça c'est pour un peu inciter entreprises yi ñu mën a recruter parce que état rôle du du recruter ñëpp. très métier de la pêche sànq wax naa la ko. nee naa la Sénégal Sénégal amuloon métier plombier métier tôlier métier ñun ñëpp dañ leen di soxla di kenn mës ta gis tôlier bu am diplôme fii wala plombier bu ko am. wala pêcheur bu ko am. xale yaa ngi jàng ah. léegi nag xale yaa ngi koy jàng. dañ ko loon jàng sur le tas da ngay ñëw ñu jox la apprenti <laughs> apprenti bi nga jàngal ko métier. mais léegi da ngay am métier am diplôme dañ la ciy formé. d'accord voilà. ñu ñëwaat avant ñu ñëw si yow. Ah, parce que ah, ah, ah ngi may wax léegi que eh, am na benn dawalkatu saret boo xam ne am na bac plus xaw ma ñaata. loolu kay ci réew ak femme ak bi doon jaay ci marché bi laa te yor licence xaw ma lan la yor ah. balaa balaa ñëw si si si. doon jaay buumu xar yi laa. mais mais loolu moo am si réew bari na fi yoo xamante ne nii xëy na ñu ngi seetaan sax am métier yoo xam ne yañ koy def ñun ñu raw ci ci ci grade te ñu ngi def métier yu gën a lii loolu ndax ñàkk fu ñu leen insérer damay ñëw euh, ci liñ doon wax sànq avant ñuy dériver ci xëy mi euh, proposition bii nii euh, président def mm. ndax jàpp nga ni solution la pour gérer li nga xamante ne mooy flux migratoire yi man jàpp ma di mooy solution bi xam nga astu il faut que Union européenne bu ñu